ملاذ الناس في دين ودنيا بذول mbokk yu tedd ñuy seetaan ci biir ak ci biti ñooy ñaan sama borom wala ñu defaral suñu biir ak suñu biti ببركة القرآن الكريم وحرمة الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم di ñaanal suñu góor ya ca Gaza Gazatul Izza sama borom taxaw leen notal leen noon bi ñu bokk non seulement di noonu yàlla ak yonentam di noonu lislaam ak jullit yi waaye di noonu humanité muy loolu ñuy tuddee Israël di bébé bu nga xam ne Europe ak Amérique ñoo ko jur moo lu ne danañ ko def ngir fañ ko yóbbu mu nekkal leen fa du fa jóge ku seetlu ni àdduna di acharné woo ci eh, jullit yi dangay dellu rekk ci jamono yonentu sallallahu alayhi wa sallam nga mën ko comprendre maanaa sa xel du mën a bañ daj xadiitu thawbaan radiallahu taala anhu nee na bés yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa leen wax ne léegi tey xeet yi daañu wootante ci seen biir pour acharné wu ci seen kaw ni ay lekkkat pur pur di wootante pour euh, lekk seen booli waaw xër ca waaw ndax lekkkat bu xiiful sax boo joxe mu lekk su xiifee nag seq ak booli ba ay moromam du ca am xel ah nee na la xeet yi di def ak yéen am ku ne ko yow yonantu sallallahu alayhi wa xanaa booba dawa fekk ñu tuuti xanaa booba daway fekk ñu tuuti ci nombre yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah, déedéet <laughs> da ngeen di bëri da ngeen di bëri keroog dangeen mat ñaari milliard ci waxin walakinakum xuthaa ka xuthaa is-sayl waaye dangeen yegg ci ñàkkal seen bopp fayda ba waxuma la bu tawee ndox mi ndox mi di yool na mu tilimee waaye mbalit ma mu yóbbaale mbuubit moomu ngeen di niru oh, waaw mbuubit moomu ngeen di niru waaw boo defee yàlla grandeur bi mu defoon ci seen euh, dënn def ko ci seen personnalité ba seen noon ragal leen wegeel kooku xëyba kooku lay rocc lay rocci ci seen dëndi noonu waaw boo defee yéen nag mu sànni ci seen xol alwahan waaw alwahan ñu ne ko luy wahan yow yonantu sallallahu alayhi wa sallam mu ne xubbu dunia wa karahiyatul mawt da di bëgg àdduna waaw ngeen di bëgg àdduna ngeen di bëgg àdduna da ngeen ragal dee te bëgg àdduna cause la ci li cause la ci ragal dee waaw ah, ndax nit fa mu bëgg di fa investir di fa tabax fa bëgg a jógee dem fu nga xam ne defu fa dara waaye gor ca wax ak bépp gor bu taxaw pour jàppale leen ñooy représenté li yonantu waxoon ne am na nag ñoo xam ne moom lu jamono métti métti duñu dëñ di xeexal yàlla di xeexal yonant sallallahu alayhi wa di xeexal diine seeni noon duñu mën ci ñoom dara ñooñ nag kenn ëpp ca doole waa Gaza ak góor yi nekk ci àdduna di protéger di protester ak ñaan ak di ñun ñëpp nañ ci bokk waaw alhamdulillah ñun ñëpp nañ ci bokk فعلي ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع